يا الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قليل فكنت جاني موهبة من mu nekkoon it góor goo xamante ni góor gu nekkoon jàmbaar la ci taxawaay gim taxaw ginnaaw bàyyi ci sàmm ndénkaane bi sàmm xilaafa gi sàmm njaboot gi sàmm bépp taalibe Baay ba pare uuf njaboot gi bëggoon ay mbokkam teg leen ci ay wetam daawut def maa muy dugg ci daara lu na rekk def ko diisoo ak ay mbokkam oo leen lépp loo xamante ni daal Baay nekkoon na ca mu nekk ca bu waxtu xutba jumaa jotee mu dem ci jumaa ji mooy xutba mooy jiite julli juróom foofu la koy jullee bu tafsir alquran jotee ci weeru koor mooy tafsir alquran bu jàng xadis jotee moom mooy moom moom moom mooy firi xadis bi bu gàmmu jotee moom mooy toog ci tànt bi moom mooy gàmmu ba fan yi mujj ci ay atam ci la jël ay rakkam teg leen ci wetam bu mawlid jotee mu jox Cheikh Mouhamad Nazir Ibrahim ñas moom mooy jàng min qabliha bi mooy mawlid bi baabu di def ni Cheikh Mouhamad Nazir moo koy jàng buñ demee ba ca fajar ga euh, mu jox Cheikh Mouhamadul Haadi rakkam mu jàng euh, burda bi mooy euh, Mawlaay salli wa sallim bi ñu jàng ci fajar bi euh, mu jox imaam jarbaatam muy imaam Hassan bi nga xamante moo nekkoon imaamu jumaa ji mu jox ko mooy jiite mbooloo mi bu ko defee papa Cheikh ak papa Dame ñoo daan nekk ci wetam gis ngeen chaise yi nii ñoom ñoo ci daan toog waaw moom papa Dame papa As ak. Papa Cheikh ak Pa Ousmane Fati waaw benn chaise bi ñoom ñett ñoo ci daan toog léegi léegi bu fekkee am neen gan Papa Cheikh ak Papa daam ñooy toog fii Papa As toog gan yeneen gan yi toog na le moo tax chaise yi changé wuñ ko ba léegi dañ koo bàyyi parce que euh, souvenir la ci ñun moo tax ñu bàyyi ko fii ba léegi pour nit ñi bu ñëwee di ci di ci di ci ziyaar ak di ci barkeelu waaw fii lañ daan toog euh, fii lañ daan dégloo ñii tari alquran. fii leen daan takkee sëy yi fii leen daan waxtaanee lu aju ci Madina gan gu ñëwit it fii lañ koy recevoir euh, képp kuy kilifa maa nitu yàlla nga jóge foo mën di jugee it boo ñëwee fii la ñuy toog ak yow. Euh, mooy saal bi yàgg naa dajale ay boromi xam-xam yàgg naa dajale ay waliyu yàlla mu nekkoon it nit koo xam ne baykat la woon maanaam moom daawut xar ay addiye di ko dundee daf daan liggéeyal boppam waaw am na ay dëkk dëkk yu bari ci àll bi boo demee. ci Taïba Niassène ak tund bu ko wër Kër Makaan Jeeg euh, Sanci As yooyu noonu yëpp ba Richard Toll fa daan bay waaw euh, daf daan tamit dundal maanaam gox bu daan dem bitim réew def daan indi ay ay ay ay ay ay nag nag yu Hollande yi moo ko njëkk a bokk na ci ñu ko njëkk a dugal senegal fii waaw ak ay xeetu xeetu xeetu Euh, animaux yooyu noonu yëpp nga xamante ni doomi aadam yi dañ koy jëfandikoo daf ko daan jëlee bitim réew di ko indi mu gi sax dem na ba ginnaaw këram dafa awtoon tool boo xam ne lépp luy fir wi lu ñuy lekk moom moo ko daan bayal bopp bépp fir bu bu ko indiwaan fii moo ko daan bayal boppam légume tamit lépp luñ ciy lekk muy carotte muy supame muy nawe yëpp moo ko daan bayal boppam ci këram maanaam ku gëmoon liggéey la ku gëmoon tamit ne nit dafa war a dundee ñàkkam moom loolu la gëmoon ba ci événement naar yi ba mu fi amee naar yu bëri indi neen fi ay centaine de million ñëw di ko ko jox mu ne maanaam moom du ko jël ku nekk rek la mu am rek na ko bind na ko na ko ko jox bés bu yëf yi seddee mu delloo leen seen xaalis ñii di ñëw di koy indil addiye mu ne leen da ngeen a nekk ci waxtu boo xam ne mënuñ cee xàmmee taalibe bu dëggu ak taalibe bu dëgguwut seen xaalis yi tee leen ko bës bu ngeen demee ba àgg seen réew ba nekk seen jàmm ba lii yëpp dal yeneen at bu ngeen fi ñëwaatee indi addiyee jox ma ma jël ko waaye moment yii ngeen nekk du ma nangu kenn jox ma ci yenn at addiya seen xaalis dinaa leen ko téel bés bu li pare te alhamdulilah ñoom ñëpp ku ci nekk ba mu ko joxee xaalisam na ko ndax jot nga mun a waaw mun a ko bindal mu bindal mu suñu archive yooyu noonu yëpp ñu ngi ko amee loolu dafay wane ne xaarutoon eh, addiya wala xaarut kenn di ñëw di ko jox te noonu la yaree njabootam gi jàng jàngale yaru am teggin am xam-xam ba pare respecté ñëpp noonu la yaree njabootam gi noonu la leen uufee eh, bu gàmmu jotaan tamit noonu la ko daan defee ni fii lay oo kilifa yëpp waxtaan ak ñoom ne leen gàmmu gaa ngi ñëw ñu xool li ci war ci wàllu maanaam li ñuy ganalee gan yi ak dëkkuwaay yi waaye ak tamit musluwaay yi daf daan joxe ay dog ñii ñaan yàlla ñii dugg xalwa ñii ñii ñii def ay sacrifice ray ko pour gan yi agsi ci jàmm dellu ci jàmm yooyu yëpp daf ko daan def daf daan génne xaalis na nañ tàmbale euh, bu njëkk dañ daan avant cérémonie mu di indi tànt bi dañ daan jënd ay ay bâche ak ay ay weñ di ko di ko gas di ko di ko def Euh, ba sëriñ maamu ñëwee alhamdulilah yàlla na ko yàlla fay moom moo ñu indi lii nga xamante ni tey moom la ñuy gàmmoo muy tànt bii nii euh, bu gàmmu jotee ci weeru gàmm yi bu teroo rek képp ku nekk ci njaboot gi foo mën di nekk ci àddina bi daf lay oo na la ñibsil ndax gàmm yemaluñ ko ak lenn ndax bëgg giñ bëgg yoon ci al Muhammad te loolu ñu ngi ko royee ci Mawlana Cheikh Ibrahima xamante ni léppam da ko jox yonent bi moo tax ñoom gàmm bu jotee da ngay gis ne ne lépp lu luñ baaxoon benn dañ koy gën a yokk lañ daan joxe dañ koy gën a yokk da ngay gis ne njabootu baay gi ñoom ñëpp a yem ci côté boobu kër goo dem ci ñoom da nga fekk mu firi fekk mu ubbi buntam bëgg duñ tëj ku ñëw ñu ñu ñu ñu accueillir la luñ am ñu jox la ubbi seen néeg yi jox leen ba ñoom ci seen bopp sax dañuy génn seen néeg yi jox ko ay gan loolu bëgg gi ñu bëgg yoon bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu du ko def bu defee daana ko dundal ci ay sikkar ci ay conférence ci ay waxtaan waaye ak jàngale xadiis yonent bi sallallahu alayhi li nga xamante ni wax neen ko ci ay ngëneelam wax neen ko ci alquran te yonent bi sallallahu dëggal ko ay saxaaba yi nettali ko ay borom xam ko nettali ko daf daan dajeeg fii ay borom xam ak ci jumaa ji di leen jàngal nan la ñuy màggalee juddu yonent bi ndax ñu bëri dañoo réeree juddu yonent bi ñii dañu wax ne ne bidaa la luñ këree la waruñ di màggal juddu yonent bi te fekk na na ci alquran yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nuthabbitu bihi fu'aadaka dañ lay nettalil xibaar yi yonent yëla jiitu ngir dëgëralee ko soqal ci gëm yàlla bu fekkee loolu la ñuy wax bàyyi loolu la ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi nee na kon ñun ñi nga xamante ni ak guñ seen yu sax saxaaba yonent bay seen yonentu ñun war na ñëw toog di nettali xissaay yonent bi ngir dëgëree ko suñ xol ci gëm yàlla noonu la Mawlana Cheikh El Hadj Abdoulahi euh, daan daan daan dundalee gàmm waaye noonu la xayaatam dundam noonu la jaaree euh, temps bi lim lim moo tax jaaruñ ko comme ni ngeen li waaw étape par étape fu mu juddoo euh, la ca xew ku yaayam cosaanam ci wàllu yaayam euh, ñëw ci baayam yooyu yëpp dama ko tënk rek waaw ndax xam naa ne euh, temps bi du ko may waaw waaye yeneen jotaay mën na am ñii di ko def nànk-nànk incha allah ba liñ bëgg xam ci moom yëpp xam ko ñu ngi leen di ñaanal yéen it lii nga xamante ni yéen a ngi ciy liggéey yàlla defal leen ci jàmm defal leen ci tawfiq yàlla may leen ay place boo xam ne yéen a koy moom seen boppu may leen ay matériel yoo xam ne yéen a koy mooma seen bopp eh, yàlla may leen koom-koom may leen doole waaye may leen it xabul may leen maanaam nit ñi bëgg leen leen di seetaan fu nekk lépp lu ngeen def it yàlla na ànd ak tawfiq yàlla am na loolu mun na ko yàlla nañ ko yàlla defal ñu ngi leen koy ñaanul baax yàlla aar leen sàmm leen eh, te liggéey bi nga xamante yéen koy liggéey ci weer yonent bi amu sikk sàkk ne yonent bi dana leen fay yonent bi it allahu moom moo ko garanti ne képp koo xamante ni yaa ngi koy xidma wala yaa ngi def ci moom ngir moom yalla moom mooy féetoo sak fay te yonent bi sallallahu alayhi moom mooy séddale nee na allah wal mu'ti wa ana al qaasim yàlla mooy joxe waaye man yonent bi maay séddale kon yonent bi ku koy liggéeyal rek moom dana la sédd te ni ngeen ko bëggee ak ni ngeen koy séentoo noonu la leen ko yàlla di joxe wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi jox mbokk yi ñu doon seetaan Euh, di leen di dig beneen daje incha allah mu gën a yaatu fekk ñu gën a am euh, temps pour waxtaan incha allah ak yéen wasalaamaaleykum مختاني إسانني قلي فكنت جاني موهي